daanaka dañ koo xëy rek mu ñëpp déggandoo ko am na taalibe yu laaj ba xam ndax da ngeen def temporairement ab liggéey bu ñu demee ba ci kanam ñu gën a étudier projet bi doog koo gën a yaatal wala lépp la ñuy defandoo. waaw ah, jërëjëf soxna soxna Awa xam nga Touba Ca Kanam bi mu jugee dafa am sept projets phares la ñuy wax sept projets phares yoo xam ne mooy suñu objectif santé def cee bokk éducation def cee bokk waaye lii ñuy tàmbali tey def cee bokk xam nañ ne assainissement dafa seer sëñ Cheikh Saliou barki dem bañ fa demee wax nañu. assainissement ni mu seere waaye lii dañ koy def temporairement pour nawet bi waaye duñ ci yem de parce que ñun dañoo jàpp ne Touba fépp foo xam ne amul tëli Touba ci kanam war na fay def ay tëli fépp foo xam ne dafa am ay tëli Touba ci kanam war naa sàmm tëli kon màggal gi day waaj a ñëw ñun nekk am nawet lii dañ koo booleeg pompe dëkk bi 9 millions yoo xam ne dañ koo bëggee pomp dëkk bi ba yoo yi ak weñ yëpp jeex waaye nag lii day loo xam ne dañ ciy góorgóorlu balaa màggal gi. taalibe sëñ Tuubaa yi bu ñuy màggal si du ñu am jafe-jafe ci ndox du ñu am jafe-jafe ci fu ñuy kii waaye suñu egg suñu suñu ko passé projet la boo xam ne daf fay tëdd projet boobu li mu laaj ay milliards la léegi dañuy gàttalu projet bi chaque année ñu avance ci dara loo xam ne nii dañuy jàpp ne lañ waroon a def wàññeeku na ci ba ba nga xam ne dinañ mën a def mbedd yëpp ñu def ko tëri def ko ay canal Touba ñu utal ko maanaam stock ndox boo xam ne nii lu taw taw taw taw taw canal yi dina mën a évacuer ndox mi mu génn dëkk bi loolu mbokk na ci projet Touba kanam yi nii jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Soy bu Ndoy ci euh, kaddu yu am solo yi soxna Awa euh, jamono bi ñuy wax ci la ba siiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir yeeg si bi sëriñ Soy bu di daaneel mooy yore kaddu yoonu murit dafay mel ni dafay jëmaat ci sensibilisation ci li nga xam ne ni mooy yittey taalibe yi yittey taalibe yi nag munul munul weesu yittey sëriñ bi ndax bërki dem la ko alaaji mbakk yu di wax di taalib yi ñoom ñun waruñu laral dul sëriñ bi lépp lu neex sëriñ bi mbaalu sëriñ bi bëgg bëgg nañu ko lépp loo xam ne sëñ Tuubaa wax nañu wax na ko jàpp na ni réalisation bi ci ñun lay tàmbalee ndax bu sëñ bi laajoone ni bakkan itam nii lay demee te yaakaar naa lii war na koo dëggal ndax jamono joo xam ne nii ni ñaa ngi xalaat luñ lekk ni ñaa ngi xalaat euh, si ay dépense ni ñaa ngi xalaat seen wér gu yaram sëñ Tuubaa moom woote bi mu wootee ab joxe ñëpp ñëw te lii olof yi di wax naan joxe xeexayam koy waaj doo ko def waaye ñoom li li li ñuy jàppe alali àddina ñoom dañoo ñoom jàpp ne ñoo ko moom ñoom pour ñoom alali sëñ Tuubaa lañ yor bu ko sëñ bi bu ko sëñ bi soxlaa rek dañ ko ko war a jox kon kon dam la mu waxoon ne aslaha zahiri wa batini maa man lil xila bila silahin xamaa moo feeñ tay ci biir eh, jataay bi eh, kon soxna Awa dafay mel ni Serigne Bassirou moom Sëriñ Abdul Xaadir rek si na gis nañ léegi Serigne Koso eh, moom Serigne Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Bassir Ah, egsi na léegi kon su ko defee ma bàyyi la rek soxna Awa nga sànni ci ay kaddu balaa ah, kilifa yi ah, di ñëwaat ñu amaat yeneen intervention jërëjëf sëñ Amidoune yaakaar naa ne li nga wax yaru na maanaa koo xam ne bu ñu laajee sa bakkan nga jox ko yaakaar naa ne la borom bakkan ba yore safatu ta wax te yaakaar naa ne euh, Serigne Touba nit ñi xër nañ ci moom jamono ji xër goo xam ne nii waxuma la seen alal li ñu naan nafsi wa diini ma ahli wala wala maskani a wa diatul aba ndénkaan loolu noonu nga xam ne da koo jëloon dénk ko suñu borom moom la suñu borom wëlbati ko waat euh, delloo ko li nga xam ne moom moo di ndénkaan loolu yaakaar naa ne suñu borom fa nga xam ne nii fa la fa la teg Serigne Touba ñun mënuñu koo xayma waaye boo xoolee nga xam ne noonu la mbindee fi mel di nga xam dayoo bi nga xam ni fa la suñu borom uh, teg Serigne Touba uh, ci nangul goo xam ne ni mindee fi nangul nañ ko ko ndaxte lii nga xam ne mooy jaayante bi yaakaar am du murid yi rek ñoom ñoo ci joxe ndax boobu ba léegi sëñ Amidoun yaa ngi dégg ñi nga xam ne ni itam dañoo bokk ak ñoom diina ji te nekk ci biir réew mi yëkkati seen alal di ko joxe kon yaakaar naa mbir la moo xam ne nii Euh, du murid rek ñoo ko moom waaye mbindee fi ñoom ñëpp ñoom ànseendoo ñu ci bare bare nangul ki nga xam ne mooy peut être ni ko Serigne Amadou waxee Serigne Bassirou Mbacké Abdoul nga xam ne moom moo yore euh, kaddu yoonu murid mi ngi noonu di ak si xam naa ne euh, d'un moment à l'autre daañ ko jox kaddu gi mu yëkkati kaddu yi nga xam ne ni moom la khalife général des mourides jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndax xam nga ni projet bi projet bi xalif général tax lu ko ñor la ndax dëkk bi itteel na ko itteel goo xam ne ni yaakaar na ni bu yëg lu mel ni yëkkati ay taalibe yëkkati ko mu joxe ndigal woo sëñ Abibu kon yaakaar naa ni euh, liggéey bi ñor na ko euh, bi ñuy wax loolu sëñ Amidou ki la sëñ Moustapha Mbaye mi nga xam ne suñu naataangoo la Moustapha Mbaye bu Dakar Actu waaye tam bokk ci taskati xibaar yi gën a mag fii ci dëkk bu sell bi ci Touba yàgg xeeñtu li nga xam ne moom moo di liggéey yu mel nii rawatina liggéey Touba ca kanam yaakaar naa ne projet bi bi muy jóg bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñun ñoo ko initié woon ak sëñ Jibril mi ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri kon yaakaar naa ni euh, war nga cee mën a am jàngat bu yaatu boo xam ne nii tey bu ñu agsee ci projet assainissement bi war nga ko cee mën a yëkkati euh, waaw soxna maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu waa Touba TV yëpp sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla c'est vrai que yàlla dogal na bokk naa ci Touba ci kanam mais dama ci am ñaari cër benn benn cër bi mooy maay vice président bu commission communication beneen cër bi mooy tubaat ci kanam bi ñu koy taxawal man maa ci njëkk am carte man maay personne numéro un bu nga xam ne adhéré na Touba ca kanam carte numéro un yàlla dogal na Serigne Touba dogal na man maa ko yore moo tax day mel ne lii lépp lu ñu def rek day mel ni man lañ ko defal journée jaay tamit benn mbir laa xam ne marqué na ma ci lool mooy Serigne Bara Matilé mi nu wax ne joxe na deux cent soixante mille te ñëpp xam nañ ne wujji na boroomam mu mel ni loolu yéeneem la lu mu amoon bi muy dund yàlla dogal mu wujji ko ay famille yam yëg ne buñ koy jaayantalee joxal koy koppar dina ko jëriñ dina ko fekk foofu moo tax loolu bokk na ci li ma gën a touché ñu ci sant di sant njabootu Serigne Sidi Mokhtar yëpp ndaxte Touba ci kanam bi muy tàmbali Serigne Sidi Mokhtar la fi fekk mu am lu mu ci waxoon nu fekkoon ko fale këram euh, Mbacke Kajoor mu am nu mu waxee woon tey ji bu ñu demee ba Serigne Bara Matalé di contribuer te newu fi loolu lu nu war a relever la. leneen nag mooy li nga xam ne jot na fay xew yëpp mooy ñi mën ak ñi mënul ñi xam ak ñi xamul ñi nga xam ni seen yéene fësal nañ ko waaye li leer ba leer mooy objectif bi 350 millions la woon. objectif moom atteindre nañ ko en une journée am nañ plus cent 350 millions te it leer nañu ne euh, lii nuy am dina dépasser 20 points yu nga xam ne bëgg nañ ko def parce que 20 points. Ah, jamono jii ñuy wax ak yéen ba bi ngeen di ñëw ci cérémonie bi ñaata moo fi dajee ci xaalis. waaw li leer ba leer mooy 350 millions moom mat na jamono ji ma waxee yow yaa ngi dégg en direct ci Touba TV ñuy wax ne ay 5 millions ngi dugg euh, Serigne Mourtada bu suñu wax na ma ni ma jaar na ci loxoom. kon lu bokk la 350 millions yi day mel ni kon 350 millions dépassé nañ ko mais mënaguñu xam exactement ci moins de ci moins de 3 jours sax laa lay wax mënul laa wax ñaata ci ay millions ñoo duggagum waaye loolu danañ ko xam te na ñëpp xam ne ñi nga xam ne dañoo contribuer ba ci ki joxe 100 francs dinañ génn liste bi publier ko kenn ku ne xam ne sa koppar ba nga ko joxee dem na fa nga ko bëggoon dem fa. lool li ñu ci jublu mooy transparence moo tax waa Sénégal war nañu bëgg murid yi war nañu bëgg ci Touba ca kanam ndaxte koppar yi ñuy dugal. amul benn dërëm bu nga xam ne mën naa jaar faneen fu dul fi mu war a dugg ndaxte système bi nu taxawal la système la bu nga xam ne xaalis buy dugg daa am fu muy dugg buy génn am na fu muy jaar ay signature ñoo koy génne te gën ngaa néew ñetti signature lay doon signature yooyu bokk na ci signature bu sëriñ Abibu Mbakke sëriñ Abibu réunion sax du nangoo naan kafe gu nga xam ne leeru ko ni ab mbokk taalibe moo ko jaayante moo tax du naan kafe Touba ci kanam du lekk beñe Touba Ca Kanam buy ñëw de indaale café de indaale beñe kooku nag bu dee signature am faaw mu dugg pour xaalis mën a génn kon rafet njort mën naa rafet ne koppar yëpp yi dugg ci Touba Ca Kanam ci liggéey Serigne Touba la jëm kon loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko leeral euh, ci mbir mi nga xam ne ñu ngi koy def jamono ji ma xew. coût global projet bi ci ñaata la toll. waaw coût pour 20 points yi mi ngi toll ci 350 millions. loolu mooy li nga xam ne parce que point bas yi mi ngi na toll ci quarante et poussière waaye vingt points yi la ñu wax ne moom la ñuy liggéey loolu ingénieur yi bi ñu ko évaluer mi ngi toll ci trois cent cinquante millions waaw xaalis boobu moom mat na kon vingt points yi ci ñun la dese ak ñu nga xam ne ñoo koy liggéey loolu moom dañ koy évacuer na mu gën a gaaw bu soobee yàlla jàll ci leneen donc l'objectif et atteint waaye yeneen koppar yi am nay koppar yu dugg yooyu bu ñu duggee nag danañ dépasser vingt points yi dem ci yeneen points yi waaye daal ko nanu rafet njort ne incha allah bu ñu yeggee ci màggal gi jàmm vingt points yu ñu ciblé moom ndox du fa taa. te it liggéey bi nekkul lu nga xam ne ñun ñoo koy def liggéey bi ñun dañ ci ànd ak murid yi waaye dañu indi borom xam-xam ñu nga xam ne seen xam-xam jëm na ci lool ànd ceeg. service su état du Sénégal parce que ñoom aussi am na réseau yu fi jotoon nekk ñoom ñoo xam fan la ndox mi war a jaar pour mu bañ a dellu siwaat parce que li ñuy éviter mooy ndox mi ñu génne ko pare yóbbu ko feneen daal di dimbali ñii waaye sonal ñee loolu lañ doon éviter moo tax doon indi ay ingénieur ànd ceeg les yi nga xam ne état moo ko fi indi ñu ànd ak ñoom liggéey ba ndox mi bu fi jógee day dem faaw loolu nag 350 millions mën na ko waaye bu ñu paree ci 20 yooyu dañuy jàll ci yeneen point parce que dañu bëgg Touba yëpp jafe-jafe assainissement doo fi doot fi am moo tax c'est l'occasion pour nous nous remercier médias yi surtout Touba TV lu tax ñu leen di remercier mooy tey ji bu 2 milliards duggee na ngeen jàpp ne 2 milliards ko dugal parce que nit ñi demuñu seen kër di leen wax ak ñoom danoo jaar ci voie de communication yi donc yéen yéen a contribué à hauteur de 2 yu ñuy wër kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam nañ li Serigne Touba moom ngeen di liggéeyal waaye Serigne Touba boobu ngeen di liggéeyal yàlla na leen fay te dina leen fay bu soobee yàlla. merci beaucoup Moustapha Mbaye euh, comme ni mu ko waxee bokk ci kilifay Touba ca kanam bokk ci ñi nga xam ne itam ñoo ko sos nekk taskatu xibaar bu mag fii ci dëkk bu sell bi ñu séq liggéey bi mu rafetal ko waaye itam yombal ko lépp loo xam ne ni Touba ca kanam ma ngi koy ma ngi koy organiser wala ma ngi koy def Touba TV lay njëkk loolu nag yaakaar naa tawféex la ndax xam na ne étiquette bi Touba ca kanam am moom la moom la Touba TV am comme ni ko El Hadj Mbacke di waxee rek étiquette boobu moom topp na Touba TV te dootu ko bàyyi tur Touba moom ni TV yaakaar naa ne fii rek lay am kenn du ko déggaat feneen kon loolu yaakaar naa sëñ am nekk na mbir moo xam ne mbir mu am solo la comme ni ko sëñ Jibril doon waxee sànq rek Euh, Touba ca kanam day liggéey sëñ Touba Touba TV itam njiitu fi xàll yoon wi ngir mën ko koo leeralal ba am la xam ne leer na nañ kon yaakaar naa bu Moustapha waxee ne bu ñaari milliards duggee euh, grâce à Touba TV kon yaakaar loolu ñun ñi nga xam ne ñun ci nekk di ci liggéey dañ ci bëgg lool. jërëjëf euh, soxna Awa kon ni ñuy def mooy dañuy déglu rek sëriñ fallu Gala Sylla xam ngeen mi ngi jël micro bi ngir tàmbali li nga xam mooy cérémonie bi ginnaaw bi Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khader yegsee ci biir jataay bi Euh, Touba TV mi ngi en direct fii ci Touba ci arrondissement Ndam euh, ngir fas yéene àndandoo ak yéen ci cérémonie bi nga xam ne ni moom la ñuy waajal ngir assenissement bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko waa Touba ca kanam euh, digtal ko taalib bi yëpp ni ma ko waxee woon léegi waaye kilifa yi fi jot a joxe seen teraanga ak seen i addiya takku na lool incha allah danañ ci ñëw léegi ci yaatal ngir ñëpp mën a xam ne liggéey baa nga yokk di jëm ci kanam jërëjëf Serigne Mbacke Mbodj mi ci régie bi ak sëñ Mañaan ak foofee ca Ndakaaru feggoo ak Serigne Jibril Ndaw ak Soxna Awa Ndiaye ak sëñ Modou Mbaye Touba ñu koy ziare baax sëñ Pape Cheikh Bey lañ jàkkaarool kon sëñ Pape Cheikh mën nañu àndandoo déglu sëriñ euh, Fallou Galassi la du tee danañ euh, ñu ngi toog jotaay bi ak a ci àddina bi nga xam ne ni moom la lancement mooy lancement bi ngi def ci wàllu assainissement ci Touba euh, kanam Touba ca kanam taxawu ko ñu ngi wax ne fii ñu toog ba léegi mbokki taaliba yaa ngi joxe seen i addiya mu jëm ci li nga xam mooy liggéey bi ndax taabal ji ne sama wet li fi dajeegun macha allah waaye nag tërëwul li ñuy wax rek maanaam ku ne woon bu fi señ bi nekkoon ma joxe sëriñ bi nekku fi ñu woote lu jëm ci dëkk bi ak lim ñaanoon ci dëkk bi kenn ku ci nekk war nga xam ne war nga cee bay sa laaj war nga cee bay sa waar waaye jarama laaji mbakki yu fay ci taxawaayam bu am solo bu rafet bi nga xam def na ko ci jël Touba TV ngir fas yéene ñëw àndandoog yéen li nga xam mooy cérémonie bi waaye bu leen fàtte itam 21 heures incha Touba TV dana am plateau spécial boo xam ne dana ko àndandoo ak waa euh, kuréelu euh, Touba ca kanam rawatina Serigne Gana Messere ñoom Serigne Khadim Gueye ak ñi nga xam ñoo ëpp euh, kuréel bi ngir ñëw soññee taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne dara du du du manqué te itam lépp la ñu bëgg taalibe yi mën koo fekke mën koo teewee incha allah ñu àndandoo ak sëñ Fallou Galass la dellusiwaat léegi. sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Cheikh Abdou Latif am na ay jaayante yu jaar ci moom quatre-vingt mille la yooyu mën naa continuer rek ñu woy ñu woyee parole bi waaw kon Touba ca kanam bu jógee ngir Touba nuroo ak turandoom wane ca àjjana xam ngeen ne ay yoon yu jëm ca dëkk ba rekk lay doon waaye na dëkk ba wara a mel lañuy wax kon fu Touba ci kanam mën a tàmbalee xam leen ne ci jumaa ji la jëm si te jumaa ji seriñ tubaa moo ñaanoon boroomam ne defal ma sama dëkk bii mu mel ne makkatal mukarrama ak madinatul munawara kon lu am makka am madina daa war a am Touba kon xam ngeen ne tubaa ci kanam ab liggéey nga koy xaar bu rëy te sëñ Muntaxa nee na yitte jii ma gis ci yéen lépp lu sëñ Touba ñaan ci dëkk bi da ngeen ko def kon dañoo war fobu moo tax ñu bëgg a fob kàddu gi jox ko Serigne Abdoul Fattah Guèye mi nga xam ne mooy président. daayira nooru daaree ni Touba ca kanam dana ñëw leeral lu jëm ci wàllu daayira bi ak programme bi nen ñi nga xam ne moom lañ sumb ak na muy tëddee su noppee danañ jox monsieur le maire Serigne Abdou Lahad Ka xam nga ne liggéey bi ba mu tàmbalee te Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha fab dëkk bi doyloo ci rakkam di jëwriñam di Serigne Sidi fab lépp teg ko ci loxoom daa wëlbati ko waat teg ko ci loxoom Serigne Abdou Lahad Ka ah daa am ñu sant ture ak Cissé ñu ne ci biir ga yëf yi bu leen làmb seeni poos waaye bàyyi leen ko xel bu ngeen làmbee ñoo xam fa yëf ya ne bàyyi leen ko xel bu baax rek am na ñu ne ci biir ñoo xam ne Touba ca kanam indiwu leen moo tax kàddu gi danañ ko jox seriñ Abdou Lahad Ka liggéey bi bañ ko tàmbalee ci moom lañ njëkk a dem dem ci préfet ak ñu ko seqal mu ànd ak ñun mobiliser waa këram ñëpp génne alalam ànd ak Touba ca kanam ci assainissement bu Touba bi kon moom la ñuy jox kàddu gi su noppee danañ jox sëriñ Abdullahi moom sëriñ daan Ibrahim kero jaayante ba ginnaaw bu ndax seerem mënut a ñàkk bu fekkee dëgg la balla yi benn membre képp la ci Touba ci kanam kero bañ wootee jaayante bi sëñ Abibu wax ma ko moo njëkk a génne deux tonnes ciment balla mbóoj balla deel jaayante ba nga daanoo bi fi na gaa yaa ngi daanoo nee naa ko nag ci yow laay listixaare sa jaayante gi bu ñu jigut bu ëllëgee yow doo jaayante bu noppee Serigne Cheikh Abdoulahi lañ koy jox moom mi nga xam ne mooy coordonnateur wu projet bii ñu yore ba noppi nag jiite section bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu environnement ci Touba ci kanam su noppee ñu jox Serigne Gàncaam xam ngeen ne Touba ca kanam dafa am kuréel boo xam ne ingénieurs yi ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci wàllu assainissement wàllu tabax wàllu lu mu mën a doon tan jàngi ko ba am li jaase teg sëñ tubaa jox ko seen di kooku seriñ Ngagne Thiam moo leen jiite ba noppi nag jiite liggéey bi nga xam ne mooy wàllu assainissement danañ ko jox kàddu gi mu leeral ñu liggéey bi nga xam ne moom lañ sumba ak fam jëm su noppee danañ jox sëriñ Amsatou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad mu wax ci turu bokk yépp waaye di kenn ci membre yi Touba ca kanam su noppee ñu jox kàddu gi sëriñ Habibullah mi nga xam ne moo woote woon su noppee Cheikh Mahmadul Basir mi sëñ Muntaxa yore kàddu yoon wi dana tëj jataay bi ñaanal ñu ñu dem kër sëñ Touba ga nag àggalee fa liggéey ba te xam ne sëñ taxaa dafa wax barki démb ne sëñ Abibu bu leen jënd ndox bu leen jënd lu ngeen lekk lépp jaayante naa ko te teg naa ko ci loxol soxna Bali dana ko togg yët ko ci kër sëñ Touba ga kon ñu maase déglu sëriñ Abdul Fatah Gueye bi nga jëlee kàddu gi nga soññu taalibe yi gësam leen loolu la ñuy wax gësam ñu joxe ba nga euh, àll dugg la nga far joxe oto ba waaye lépp dafay jëm ci tawféexi sëriñ bi waaye euh, sa sunu jëwri ñun ñëpp di sunu xarit muy alaaji mbàkk yu fay dafa yëkkati organe bi boole ko addiyaam wax ne moom fu ñuy liggéeyal sëñ tubaa xam nga ne daraam du ko fekke euh, ba tax ñu ñëw fii ngir defal mbokki taalibe yi en direct ak guddi gi incha allah plateau boobu yow ci nga bokk lan nga soññu taalibe waaye bi nga xam ne ni moo Cheikh Mouhamadoul Mountakha taxawoon na ko jox ci ndigal tubaa ca kanam ngir ñu liggéeyal Serigne tubaa ci dëkk bi waaye bi nga xam ne nii sunu jëwriñ ji am na ko. jërëjëf Serigne Amidoune maa ngi lay nuyu yaak seen Jibril Ndaw ak sunu jigéen bii. Soxna Ndiaye di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha lii lépp mooma suñu boroom yàggal ko fi lool kattanal ko dëgëral ko wéral ko ba lépp li nga xam ne yéene na ko ci liggéey sëriñ bi mu defee ko na ko bëggee ci barke borom Touba ngir gàttal nuyoo bi dañuy jëlaat lépp teg ko ci loxob sëriñ Abibullahi Mbàkke moom dana xam nu mu koy séddalee kenn ku nekk la yàlla ci moom mu jottali ko ci nuyoo nuyu bu baax a baax mbooleem ñi fi teew waaye bu ñu waxee ñi fi teew dañ ci jiital képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bi nga xam ne moo ñu fi dajale di Touba ca kanam mooy ñëpp tàmbalee ko ci ñi nga xam ne liggéey bi bi ñu ko wootee te ñu toll ci ñeenteelu at bi ñoo ci njëkk wuy si ñi ci njëkk a wuy si tàbbi ci di ci góor góorlu di ci dox ba tax ba tey tax mu agsi fii ñooñu fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rawatina waa bitim réew rawatina waa bitim réew ndax ku xam Touba Ca Kanam ak bitim réew danga xam ne war nañ leen a beral ab nuyoo ak ak kon noo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen jaajëfal di santaat yàlla bu baax a baax dellu santaat sëriñ Touba ci liggéey bi fi mu toll fi mu ne nii ci tolluwaay bii nga xam ne ci la ñu toll tolluwaayu tàmbali. ñoom ñëpp yëngu nañu waaye dañu yënguwaat waaye xam nga ne Abdoulaye la moom nanguwul ku ko tudd ci leen waaye liggéeyal sañ Bamba nag daañu ko tudd maamam yi maam ak baayam yi sil Sylla ñëpp liggéeyal sëñ Tuubaa lañ doon baayam nekk ci dëkk bi daaw bañu sëkk Tuubaa daaw jéeg juróom fukki peel la joxe kooku dana yëngu leeral mbooloo mi daal ni yëf moom mat na Tuubaa ca kanam la lan moo tax a jóg sëkk Tuubaa dindi buut yi bale mbedd yi defaraat ko suufas Tuubaa dafa laab mbedd moo taxaw julli kenn dootu dugg si mbedd di wëri jël taataay yi sànni ko sëkk ko usine bii defar béton démb bi sëñ bi waxaale ak moom jënd na quota ba dañ koy bétonné mbedd yi godoré ne ko fu la neex lal fay si jaade junniy jàkka ak juróom-benn fukk ñuy Tuubaa fu neex waay julli waaye mbedd yet mën naa julli dañoo bëgg mbedd yi julli looloo tax Touba ca kanam jog liggéey bii nag liggéey bu ne jaar na fi liggéey sa Touba waaye Touba ca kanam ca ñëpp ànd sëñ Abo Cheikh Mat Fadal 45 la sëñ Fallu toog ci xalifa gi ni kur bëndëng rafale meng jiba muut dasa tas ba ndar juróomi sooroo sang Fallu mu ne ni teebi doog fay joxe moo jëkk a joxe juróomi million sëñ Bass Abdou Khadir mee toog joxe ñaar sëñ Modou Habib joxe un million sëñ Cheikhoum sëñ Thialiou joxe a million ba pare wax kaddu sëñ Cheikhoum sëñ Thialiou non ko tey lañ ko mës a dégg wax ja caabi la wax jàpp doole xaalis ba yoonu mu wépp waatoo nañu lu waayam tey nee naa leen génn tey tante bi xaalis yóbbu ko sa kër araam na tey lu yor na ko liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba rek. moom rosi bi daal ku ko yor dóorus man nag sama yaram tàng na ma joxe oto bi gars yi yi jot nañ ko am na am naa de am naa deux lu topp te sama yaram a ngi xasanaat oto bi daal danaa ko joxe waat gars yi téye nañ ma nag waaw sëñ tàkko jëwriñ ñu ngi lay gërëm tey ci guddi am nañu plateau télévision bi daal sëñ Bamba ko moom jox na ko jox na ko sëñ Touba. jërëjëf euh, sëñ Ablaye ñu gërëm ko ni nga ko waxee 24 heures yii ñu nekk euh, Touba TV El Hadj Mbacké Faye daf na ko disposition Touba ca kanam ndax li ko waral mooy lépp lu ñuy liggéeyal Serigne Touba kenn mësu ko cee man ci taxawaayam bu rafet waaye wax naa léegi kilifa yoo xam ne sëñ Jibril dañoo wone aw yoon tey képp koo xam ne daa nga joxe wax naa léegi tudd naa léegi Serigne Cheikh mu Serigne Saliou. tudd naa sëriñ Abdou Samad moom sëriñ soye bu taxawaayam soññeem tudd naa léegi soxna moomi Kébé sëriñ Ablaye Tage soxna moomi yamul ci joxe waaye dafa joxe pare ne maa ngi ñëw Touba te bu ma ñëwee Touba dinaa dolli loolu nag yaakaar naa taxawaay ba am solo la waaye ku mel ni Aziz Ndiaye ku mel saar nga xam ne taalibe yëpp waaye sëñ Jibril dafay dëgël ne ku laal taalibe yi niin li sëñ Touba doon wax naan ku ma laal baax ku laal ku ma laal baax loolu waykat ba loolu la waxoon ne ndax ndax ne ma laal baax laal ku ma laal baax ngir maa laal Bamba ku laal Bamba di nga saf sap loolu nag jàpp naa ne dafay dëggal rek li ñu doon wax léegi sëñ Jibril ci statut bi nga xam ne ni Touba am na ko xam nga tey dañu wax ne màggal Touba kat férié la statut spécial lañ ko defal dëkk bi moo laaj loolu léegi dëkk bi moo avancé avancement boo xam ne pas-pas bi ak xel yu muy daw kenn attanu ko loolu moo waral tey jii ku ñëw ci ndaje mi xool mbokki taalibe yi seen xar kanam da ngay xam ne tey liggéey Serigne Touba rek moo wóor euh, sëñ Jibril ndax nit ku la jox alalam yorub rusi boole ko jooy tey ñaan ne joxe waaleel naa sama diw ma nga xam ne fekkewu ko nga xam ne kooka gis naa léegi koo xam bi muy joxe dafa wax ne dafa joxe waaleel ñoo xam ne ni bañ faatoo yàgg na waaye dafa wax ne buñ fi nekkoon dañ leen ko joxe am koo xam day ñëw lim ay doomam diw diw diw diw joxe waaleel naa leen loolu yaakaar naa maag yow léegi mi ñëwee ci taabal ji loolu dal nañu ndax sunu njaboot itam ci ñun lañu aju te képp kuy taalibe itam ci loolu ngay ci loolu ngay wéy maa ngi ñaan képp kuy seetaan Touba TV wala ngay seetaan télévision bu mën a doon ci réew mi na nga xam ne jëf ji ñoo ko fi ba moonu fi ba ni nga ko waxee ne di sëñ bi li taalibe daan wax mooy sëriñ bi dollinu li li ñu joxoon doyuñu <laughs> jërëjëf sëñ Cheikh Euh, sëñ am noonu rek dolli ñu li nga ñu joxoon doyuñu waaye euh, li nga ñu digoon tegaguñ ci suñ bët wajhal ilahi maskani tuuba abad mi miha bi jaay xayr man abad loolu tegaguñ ci suñ bët alaaji baara bi muy tàmbali fii di def pavé jumaa ji dani dama bëgg lépp loo xamante ne ma nga Makka ak mu am fii ci Touba te loolu faw day am li am solo mooy bokk ci ñi koy amal réew mi nag dañ cee toll foo xamante ni ñun waratuñoo doon téléspectateur ay acteur la ñu war a doon sëñ bi seetaan ñeetaan la kilifa gu mag waxoon ni ba ma ñëwee tuuba ñetti raa dama faa dama rus rëccu rët ndax mu ni li ko rusloo nee na ma judd ci Touba ba ni ma war a ñu yëkkati fi jumaa jii ma toll à 7 kilomètres di ko séen muy liggéeyu yàlla nekk ca kaw sama dërëm mosu cee dem nee na loolu rus naa ko te réccu naa ko waaye liggéeyu Tuubaa ca kanam bi taalibe di jullit nekk ci réew mi ñu naan Touba ca kanam muy def lii di def lii di tabaxi hôpital di def laa nga bañ naan def nañ ci ñeenti milliards juróomi milliards ba nangam ba tey jii ñu ne dañ dem ci assainissement ba ngay taalibe toog ci dëkk bi xool sa bopp xiyaas sa bopp ñaari téeméer yi ñuy laaj mosoo ko cee tàbbal war ngaa xoolaat sa bopp sa diggante ak sëñ képp koo xamante ni tamit yaa ngi toog di ko def ba tey jii Touba ndox yaag lépp di daw demoo ci war ngaa réccu te ku ñëw dugg fii ci hôpitaux yi nga xamante ni ñoom tabax nañ ko fi nga wër ko xool liggéey yin fiy def xool garab yin fiy saxal xool leneen ak leneen nga dib taalibe te ni woon boo ko amoon def ko boo ko amutit te am ñaar téeméer yoo ci mën a tàbbal par weer nga def ko ci kon suñu am affaire àdduna loo ci mën a gis mutualisation moo ko def yoon wi nag naka jekk noonu lay doxee ñeent ñi rek ñoo ko séq borom xam-xam borom alal borom doole ak xëy na borom borom mbooloo yeeg yooyu ñu àndandoo doxal liggéey bi. loole yi nag lépp dafa daje tey jii ci Touba ci kanam dégg nga léegi ñuy présenté ki nga xamante ni moom moo jiite ingénieur yi ñoom ñoo xamante ni lépp sëriñ bi daa am lépp fii ba Nasa Murit yaa fa. fii ba Nasa Murit yaa nga fa kon nag ñooñu tey jii ñoo war a dajaloo kenn ku nekk ca la nga xam ak sa xam-xam ak la nga doon nga xam ni sëriñ bi moo la ko jox nekkee yéen ñii. ay ay ay ay nit yi média di ay journaliste ak yëpp jël loole jël ko delloowaat ko sëriñ bi di ci liggéey nii ko sëñ Ablaye di waxee foo mën a nekk ak télévision boo mën a bokk sëñ Touba la ñor fu ñu yëkkatee sëñ Touba gis nga ni nga defal El Hadj Ndiaye El ni mu def réew mi yëpp war nañ ko cee sant ndax i tamit lii rek la ñu am koo xamante ni tey jii ñun jàppal nga ñu sëñ Touba ñun Touba murid yi noonu la ñu mel ti adore sëñ Touba les murid t'adore kese waaw ñun waaw moo taxit bi bi diw bi diwlin Sador ñëwee tamit ñëpp adoré ko waaw. yow boo paree da nga jaar commercial sëñ Ablaye bala maa ñëw ci soxna Awa day mel ni sëñ Jibril wax rek la ku ñu laal gis suñu bopp ndax nun moom rek la ñu am. gis ji Alaaji Njaay daañu ko fay ba wis ko jëwriñ fay nañ ko moom wisam ëpp na jëwriñ wisam ëpp na na fi mu ne jëwriñ barki dem dafa kaaraw benn kaaraw di julli si dama ko gisee jooy sama xel sëñ mag bi rek ni mu dugg see ni mu ni mu ne malaj rek nga xam ni euh, ànd ak sëñ Bamba toppam siti la ca sët lay gënaay bi muy dugg si sama ngi rok ma xam ni sëñ Bamba ko def ne maamam lu ma am Cheikh maamam bot na Cheikh Ibra Cheikh Ibra bot na sëñ Bamba kon jëwriñ mbàkk lii mu def la war a def ah màggalu sëñ Abdou Khadir nag mi ngi ñëw la wen deux jox na la ndigal sëriñ bi dafa waxoon Cerno Birahim ba mu koy tuddi Cerno yéexalal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara sëñ Modou Abdou Khadir nangoo naa ci moom mu ni at mu jotee ku ñëw ci bis ba am te loola sëñ Cheikh nag dafa nangu ndigal jox sëñ Moustapha lépp dégg ngeen ni mu ko wootee ci li sëñ Mountakha wax rek te nu tënku Khadir bernde rendi jàng alxuraan waaye fàttali nit ñi nag sëñ Abdou Khadir amul baas nag amul cérémonie lu sëñ bi dogal rek waa ko sëñ Abdou Khadir ku dikk fekk leen ci waaye fàttali nit ñi nag sëñ Abdou Khadir moom jot na fàttewuñ ko waaye nañ leen ko fàttali ñaanal jëwriñ yàlla guddal fanam te may ko wér. jërëjëf sëñ Ablaye Mbaye Peex soxna Awa dafa mel ni fi sëñ Ablaye daanee ne rek foofu la fa la ñuy ñëwaat waaye sëñ Ablaye euh, doomi Alaaji Njuga ji soxna moom yi at na laak ku baax muy doomi Serigne Maam Mor mu Cheikh Amadou Fadal muy Serigne Baara taxawaay bu am solo la am ci soxna si mu joxaat di bari teg ko ci sa loxo ñu yóbbu ko sëñ abi juróomi million la ma sëñ baara jox soxna moom yéemu ca bàyyi ba ma toog mu woo ma téléphone ne ma départ naa ndakaaru ñëw naa waxal sëñ abi bi nu ko loolu sàmbali la sans bàyyi lu ma am sëñ du ma ni kenn damay jigéen lu ma am dinaa ko def sëñ tubaa loolu la soxna moom i kebe def ak borom këram Abdoulaye Tage monsieur le maire ay wax fanweeri million ak juróom la joxe léegi. kon ñu déglu monsieur le maire Cheikh Abdou Lahad Ka euh, maire tubaab moo mooy yëkkati ay kàddu noonu kon ñu déglu ko dellusiwaat ci euh, plateau bi incha allah. sëñ Tuubaa su ma nuyoo ci njabootu sëñ Tuubaa gi dama koy yëkkati jox ko sama kilifa gii fi toog muy sama sëriñ sëriñ Amsatu Mbàkke bu sëriñ Abdul Ahad mu jottali ko bokkam yi fi teew muy sëriñ abibu mbàkke bu sëriñ fàllu ak sëriñ tàkko mbàkke bu sëriñ fàllu ak sëriñ basiiru mbàkke bu sëriñ abdu xaadir ak sëriñ cheikh mbàkke bu sëriñ mahamadan sëriñ fàllu mbàkke bu sëriñ baara xoroja sëriñ abdul ahad mbàkke bu sëriñ abibu ak sëriñ siidi mbàkke bu sëriñ cheikhuna ak sëriñ Abdullahi bu sëriñ Ndam atta yi nga xam ne jàkkaarloo na ak ñoom ñu gis gis leen di leen joxe siyaare di leen ndokkeel di leen jox cër bi leen yàlla jox gannaaw bu loolu wéyee ma nuyu sama bokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa fi teewat muy góor ak jigéen mag ak ndaw teñ bokk pas-pas comme ni ko sëriñ bi waxee ci sëriñ Touba maa ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen baal ak di leen ndokkeel ci bis bi ñu génn di leen ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa nangu seen liggéey ci daje bii ñu daje ci liggéey bu rëy bii nga xam ne Touba ca kanam programme bi teg na ko mu toll nii te mel nii ci ngir Serigne Touba rek di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di leen xamal ne maa ngi fii taxaw ñu jiital ma ci conseil municipal bi ci ndigalal ni sëriñ Muntaxa muy sëriñ Sidi Abdul Ahad Mbàkke mi nga xam ne moo tax ma taxaw fii di wax ñu mu boole ma ak l'ensemble des conseils municipal bi ak bureau municipal bi nga xam ne moo composé maire Touba loolu ñu yàlla nattoo ma mu yëkkati ma teg ma ci bopp bi ma ànd ak ñoom di seen ndaw li nga xam ne maa leen di doxal ak a waxal di leen xamal ne maa ngi ànd ak waa bureau municipal bi ak adjoint maire yi ak conseil yi ngir ñu teew fii tey ci bis bi di la xamal ne rek sëriñ bi mbiram sëriñ Touba ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi ñu juddoo ci ak taalibe donn ko taalibe ci suñuy maam suñu suñuy ba fii ñu taxaw te yàlla xéere ñu ci lu dul am yëg-yëg ci sëñ Touba di ko liggéeyal di sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp Touba ci kanam ci seen xalaat bu rafet waaye ci seen pëstéef waaye ci seen yëg-yëg ndax ni ko sëriñ Abdou Fatah waxe léegi nit yëg-yëg moo koy conditionné mu jëm ci acte bu mu def acte bu mën a doon kon nag su fekkee ne suñ borom tabarakoo taxalaa taala xiir nañu ci sëriñ Touba ñu am yëg-yëg ci sëriñ Touba ba suñu àddina ak suñu àllaaxira suñu jaayante yépp ñu yëkkati ko mu jox ñu yëg-yëgu nañ yég Serigne Touba nañ taw jëm ci sëñ Touba li sëñ Abdoul Ahad waxoon rek ba ma xamee ne xoolee lépp lu ma am ci terangay àdduna lépp lu ma am ci maxaama lépp lu ma toll lépp sëñ Touba ma ko may ma seet seet lu ma ko mën a faye aw ma ko damaa ci sama lépp jox ko sëñ Touba ba mu jeex te mu mel ni murid yi roy nañ ko ci loolu ba ñëpp nee nañ dar na Serigne Touba ku xool jataay bii dégg ni mu demee gis action bi ni mu demee gis préparation bi nga war a xam ne murid yi moom am nañ yëg-yëg te sëñ Tuubaa te seen lépp sëñ Tuubaa la ba jeex gannaaw bu loolu wéyee nag ci wàll ji nga xam ne moom la ma yàlla natoo ma fare fi muy ci taalibeb sëriñ Tuubaa ñu yëkkati ma teg ma ci bopp commune bi ma dénk ma liggéey bi ma ànd ko ak taalibe sëñ Tuubaa yi li ciy sama warugar te nga xam bi ñu xalaatee xalaat bii ñu woote mbooleem ñoo xam ne xam nañ ne dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga man état Sénégal mi ngi ci di def li man lépp commune bi mi ngi ci di def li man lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci li man di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne munul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo ak autorité yi muy gouverneur préfet sous préfet woo association yi fi nekk yépp woo service technique yi fi nekk yépp woo waa Touba ca kanam ak association yi nekk ci gox yi ak goxaat yi ak euh, waa wilaaya ñépp laa woowoon bàyyiwuma woon benn secteur ne leen dañoo ba dama bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam Sëñ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne saafara moom yombul waaye nit sañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorité yi ak waa membre de état yëpp ak service technique yi waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ fa Fatah waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am yéene tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax ni ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbali yow nëga mu jëm ba dan ndax feek addinaa ngi dox yoonu murit di dox Touba di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen ak xereñ ci seen ak njàmbaar ci seen ak manko ci yëg-yëgu sëñ Tuubaa nga xam ne li ñu ko tuddee Tuubaa ca kanam taalibe seen Tuubaa yépp a ngi ci ñu laase ko mu murit yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci teñ ànd ko ak ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Touba ca kanam moom liggéeyal sëñ Touba te kenn du ma ci man fu ñu toll ku fasiwuma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Touba loolu moom maa ngi ñaan seen borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jógee ñëw Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Serigne Touba bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def li ma am lépp ci logistique loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que Abdou Lahad Ka ma jël cinq millions yoo xam ne maa ko def addiyee Sëñ Tuubaa du acte bii nag moo njëkk ci moom dama fa yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahad a ci biir lu ñu yëkkati fu ñu toll ma toll fa ak ñoom feeg maa ngi koy man loolu ma ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique yu entreprise boole leen ak moom ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doora nag ñëw ci li nga xam ne moom laa yor te ñëpp bokk ko muy commune Touba bi commune bi it bi ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant yaakaar naa ne lu mu bari bari mënul ëpp 5000 litres ma yëkkati 5000 litres jox leen waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati 30 millions de francs CFA def ko ci participer ko ci waaye 80 personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement. ma jël trente personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à partir de tey ba ba ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak oto commune bi nga xam ne hydrocureur la ñu ngi fi te fépp fu ñu war a manque wala fu ñu war liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba faciliter ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko teg ci ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci ak ñi ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom ba mu jeex gan loolu daal laa la ñu laa ne woon danaa ko leeral te di leen xamal ne Abdou Lahad Ka ci cinq premiers membres te membre de Touba ca kanam yi la fas yéenaa bokk te du ci des gannaaw ndax sama maam musul des gannaaw ci yoon wi sama baay musul ci des sama sëriñ sama idol sëñ Abdou Lahad Mbacke kenn du tudd yoon mu di te tuddoo ko junni yoon donc loolu laa fas yéenaa ànd ak yéen nekk ci yéen ànd ak yéen fas yéenaa di liggéey ba am ngërëmal sëñ Touba ndax moom rek moo mën a njariñ nit mooy njariñal taalibe yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Ka en tant que maire waaye jërëjëf Serigne Abdou Lahad Ka en tant que président euh, Touba Matériaux ah, jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Serigne Sidi ñett yooyu lañ la wooye woon ñett yëpp wuy si nga ci ñuy fàttali na ci jataay bi Serigne Cheikh Abdoulahi xalifab sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke moom sëriñ Abdoulahi yal na yàlla dooli yërmaaneem ak tawfeexam teew na fi ci ndigalul waajuram sëriñ Modou Habib mi nga xam ne ba jaayante jotee kenn njëkk ko jaayante ànd ak njabootu sëñ Abdoulahi gépp mi ngi toog ci jataay bi Abdoulahat sa Sadaga député sëriñ Touba moom it ñëw na ci jataay bi ànd ci ak jëfam ju rëy ak jaayanteem moom it gis nañ ko ñoo ngi koy sant di fàttali ne sëriñ Abdoulahat Mbakke moom sëriñ ku ne xam ne pàcc bu rëy la ci jotaay bi moom it mi ngi ci kon dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Cheikh Abdoulahi moom sëriñ Daam Ibrahim moom it mu yëkkati ay kàddu moom mi nga xam ne moom lañ dénkoon liggéey bi waaw sëriñ bi daa war a ñëw moom moo jiite moo coordonné woon liggéey bi diirub ñeenti weer yi nga xam ne ñu ngi ciy jox mu leeral ñu ab liggéeyam fi mu toll kon sëñ bisimilah.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 waaye ci turu commission environnement bu Touba ca kanam waaye ci turu mbooleem membre yi Touba ca kanam te buñ ko waxee loolu sëñ Abibu nekk ca bopp ba sëñ Abdoulaye sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abibu ak sëñ Abdou Fatah Guèye muy kàddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm ak ay leeral yu jëm ci liggéey bii nga xam ne yàlla dogal na ne li ci aju ci am nos ak taxawu kuréel gi ko yor man lañ ca jiital kon nuyoo yooyu ak siyaar yi ñu ngi koy teg ci loxol sëñ bu mbakki mu sëñ Fàllilu mii di jëwriñ mu tegal du ko ci loxol mbokkam yii mu fi nekkal sëñ man cee ràññee Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye ak mbooleem autorités yi fi teew tañ man cee ràññee monsieur le maire mi nga xam ne ni ñu ko waxee ay casquette am bari na ndax maire la waaye taalibe la waaye mu jëm nag ci mbooleem mbokki taalibe yi ak jullit yi yépp yi ne ci réew mi te liggéey bi saf leen yitteel leen liñ ciy indil ci leeral mooy commission environnement Touba ca kanam atum ren jii lañ ko sos biñ gisee ne liggéey bi day yàqaliku te lépp dëkk bi moo tax a jóg Touba ca kanam gis nañ na environnement lu ñuy def am na ca solo ñu sos commission environnement dénk ma ko ma ànd ko ñi ma ko àndal ci loolu ci lañ jógee ci koor gi commencé def ay étude xool ba xam lan lañ war a def ci lu jëm ci wàllu assainissement wu dëkk bi ndax commission environnement li mu lëng bari na am nañ ay projet ci wàllu mbalit mi am nañ ko ci wàllu euh, naataangey dëkk bi reboisement waaye am nañ ko ci assainissement ak yeneen i volet waaye li ci gënoon a jàmp ngir nawet bi ak màggal gi moo ci moom lañ ci jiital kon mu jëm ci assainissement wu dëkk bi ban tànk lañ ci taxawee ci lañ jógee nag def ay étude xool fan lañ ko war a mën a jaar ànd kook suñuy ingénieur ak suñu yi xam-xam associé ci yeneen i entreprise pour ñu indil ñu ay proposition ak ay solution ci li ñu bëgg a def lan la ci loolu bi ñu doxee ba def li ñu war a def ba pare ba jot rapport yi ba décider lan la ñuy jël pour defal ko def ko te loola mooy offre bi nga xam ne Touba ca kanam def na ko defal na ko boppam ndax booba amul bénéfice bu dee entreprise ku ci ne da ngay defar sa offre def sa main d'œuvre def sa matériel wut loo cay am Touba ca kanam comme am nay ingénieur tam mën naa taxawul boppam mu choisir boobu bi mu ko choisiree mu ne coowu dem Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te li mooy lépp liggéey bi te ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di wax ne moom moo gunge Touba ca kanam moo ko ñemeloo moo ko ñaanal ba fu mu yegg si tey jii moo ko fa yeggale te booba doonagul lii mu doon bañ ca demee fekk na mu joxoon ñi ndigalul lépp lu ngeen xalaat ci lu baax ànd naa ci ak yéen xanaa ngeen yëgal ma waaye lu ngeen xalaat rek jox naa leen ndigalul na ngeen ko def bañ demee leeral ko liñ bëgg a def mu rafetlu ko lool ñaanal ñu ci encouragé ñu bu baax comme ni mu ko baaxoo di defee ne ñu nag léegi kon doxal leen yebal ñu ci sëñ basum sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo koy taxawul mbooleem liggéey yu aju ci yoon wi ak dëkk bi bañ demee sëñ bas waxtaan ak moom moom it mu rafetlu ko sant ci gërëm ci indi ci ay xalaatam biñ ñu laajee ñu jox ko programme bi ñu teg techniquement ak lépp lu ci aju moom itam mu dolli ci ay xalaatam ci ne ngir gën a baaxal nañ ci associé ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ci dëkk bi muy lu jëm ci wàllu tali yi ak lu jëm ci wàllu réseau assainissement bi nga xam ne nii moo fi newoon ci la organiser waat benn rencontre woo waa Ageroute ak Enancine woo euh, waa waa waa waa waa ñu yebal seen responsable ñu ñëw toog ci kanamam ñu waxtaan ñu won leen liñ bëgg a def ñu apprécier ko wane ni nii baax na indi ci seen i xalaat waaye yemuñ ci ñu jëlee foofa kon benn collaboration boo xam dañ koo war a wéyal ngir euh, techniquement ak li ñu proposé ñoom ñu indi ci xalaat ñu àndaat de organiser ñu jóge fa kon dem ci monsieur le maire mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk dëkk bi bañ demee waxtaan ak moom fekk amoon nañ ay xalaat ba doon ci wéy ba woowoon ci Touba ji nga ba bañ commencé woon di xalaat euh, moom itam bañ demee wax ak moom mu rafetlu lañ xalaat ñu gën a dëgëral suñu collaboration mu jël ay engagement engagement yooyu bokkoon na ca cinq mille litres yu mu tëdd ci ne commune bi dana ko joxe ak itam moom ci boppam en tant que maire matériel logistique am bi entreprise am am lépp luñ ci soxla lam ca mën a jàppe dana ko ci jàppe loolu engagé woon na ko lu jiitu tey muy engagé waat engagement yu bees yi mu jël kon moom itam ñu koy sant di ko gërëm ndax bokk na ca collaboration bañ amoon ñun dañuy defar loo xam ni dañuy wéy di fi nekk kenn dootu ko fi jële bu bu ko yàlla dogalee loolu lañ bëgg a def loolu tax na euh, ànd naag liggéey bu yaatu ndax nawet baa ngi ñëw day taw fi ñuy war a defar mooy fi nga xam ne ndox mi daf fiy taa maire ak collaboration ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ko seqal muy autorités yi ak waa état bi ci euh, direction bi nga xam ne ñooy wàllu inondation yi ñu jël programme ak sapeur pompier ci fépp foo xam ne ni ndox mi daf faa taa euh, su boobaa ñoom danañ ñëw daal di koy vider mairie dana fa wàcce courant sapeur pompier indi ay pompe ñu jëlee fa ndox ma ngir ñun ñu mën a liggéey loolu bokk na suñu collaboration yamu ci léegi waaye jëlaat na fii ay engagement wax ne commune bi dana ci def 30 millions dana nu jox personnel bi nga xam ne moo ne ci wàllu assainissement bi mu loolu noo ko déggandoo ñu ngi sant di gërëm di ko rafetlu di wéyal rek li nga xam ne ni kon moom la ñuy moom la fas yéenee liggéey di wax ne études yi def nañ ko ba pare dëkk bi rëy na liñ ci war a def bari na ci assainissement dañoo jukki li nga xam ne moo ci gën a jàmp ginnaaw bu wëree ba xool ne lii moo gën a urgence rawatina libéré yoon yi te loolu tàmbulee ci fii ci station Shell bi ak fële ci buntu meer yi ba te maire wax ne jërut ñu koy laal ndax pare nañ pour defar ko ak fu mel ni euh, tokkooru sëñ ceex ba ak yu ni ba mu mat vingt sites yi ñu jàpp ne moo gën a ñor ñu fas ko yéenee tàmbulee am na ay tali yoo xam ne yoon wi daf koy nangu yemul ci ay tali waaye am na ay mbedd trente yu mag yoo xam ne amul tali waaye na muy méttee ëpp na dox euh, bu nawet bi xasee ubbi kenn dootu fa mën a jaar te am solo la ci dëkk bi nekk ni ki trente ba li xam ne moo nekk ci kër Sëñ Ñaan Jóob lañ ciy joxe comme témoin ak trente xaw ga amul tali waaye ndox mi daf koy nangu am na it ay tali yoo xam ne dafa yàqu yàquwin wu doy waar woo xam ne mën naa indi ay loraangi ni ki yoonu Daaru Rahmaan ci station bi foofu amul problème ndox waaye tali ba oto mën na faa daanu bis bu set te ay jiyaa nga fay am ndax nam daggee moo yéeme loolu bokk na ci sunub liggéey euh, bokk na ci itam yu ni mel kon euh, lu mel ni euh, lu mel ni noonu ñu ko waxee ay tali yoo xam ne dafa dagg ak ay giri avaloir yoo xam ne dañu ko defoon ci kaw tali bi te mu yàqu oto man faa surux ay nit mën faa surux mu mën a indi ay loraange loolu yëpp bi ñu ko xoolee jàppoon nañ koo boole ci sunub liggéey ni ki loolu ñu ngi koy wéyal waaye collaboration bi ñu am waa AGEROUTE nee nañ ñoom lu aju ci tali nee nañ ñu bàyyee leen ko danañ ko doxal nee nañ leen nag bàyyi gi mooy commencé feneen kon di leen déglu suñu yeggee foofu te defaru leen ko incha allahu danañ ko defar ndax loolu la ñu waxanteeg sëñ bi te loolu la ah, jëm ci loolu it lu jëm ci loolu nga xam ne nit mën na cee surux ni ki ñaari étage eh, misaal la ci tali bii jaar ci ginnaaw ko sëñ ne tali la woon yu def ci fu ndox miy jaar tam loolu ci liggéey bi la Ageroute jël na ay engagement ci ne dina ko defar waaye ci anam gi bu ñu ko dégloo ba yegg ca bu ñu ko defarut incha allahu la ñu waxanteeg bi kon daal liggéey bi ci tënk loolu la ñuy ah, fas nañ yéene it ni ñu ko waxee environnement yaatu na pomp dëkk bi pare nañ ci incha allahu waroon naa tàmbali semaine bii jiitu tabaski gi waaye lii moo xaw a jàmp waaye incha allah semaine bii di ñëw danañ ko danañ ko engagé kon li ñu war a def bari na waaye li concerné jëmmi lii ñuy def di ko tàmbali tey rek ci la ñuy wax bu ko defee ci loolu nag la ñuy waxee ne kon ñi ngi sant ñëpp waaye cant gi ñi ci ciy jiital waa Touba kanam mooy murit yi dégg woote bi ñu engagé fas yéene weer wu dee ñu joxe 1000 francs moo xam par ñaar fukk lañ koy def moo xam par fukki dërëm moo xam lu mën a doon ñoo ñu ñoo am mérite bi parce que moo tax Touba ca kanam ñemee dem bay engagé lu jëm ci projet bu toll nii bu dul woon loolu duñ ko xalaat kon ñooñu la ñuy sant jiital leen ci cant gi su demee ba njëkkati lu mel nii am ñuy engagé un million ñuy engagé cent mille ñii engagé deux millions ñi trois ñii cinq millions ñi dix ñii cinquante millions ba am démb ku engagé deux cent quatre-vingts millions ñooñu nga xam ne ñoo tàmbali liggéey bi te ne ci way ci deng bu dégg bëccëg suba ngoon te gën cee ràññeet li jigéen ñi ñu teg seen loxo seen nuyoo ak seen i cant ci loxol soxna Bintu Mbàkkeem sëñ bi bu mi ko jiite ak ñam ko àndal ñëpp ñooñu ñoo am mérite bi kon képp wuy si rek ci kaw ñooñu nga wuy si kon ñu leen sant leen gërëm di leen ñaanal ndimbal ak tawfeex ak mbooleem ko ci participer di wax ne nañ ñu wéyal liggéey bi ci kaw nu mu gën a baaxee liggéey bi soxla na xam-xam soxla na alal soxla na matériel lu ci ne liñ ci soxla doyut ndax lii dañ koy tàmbali waaye bu ñu amee lañ bëgg dañuy enchaîner du ñu taxaw incha allah ba defar nañ ne sëñ Tuubaa la ñuy waxee ne kon képp koo xam ne participation ñaar fukki dërëm nga am ñu ngi koy tàmbalee di la ko sant di la ko gërëm di indi loo xam ne xewoon na ci jamonoy sëriñ bi ci ku ñuy wax euh, ku ñuy wax euh, sëriñ ma si seen ndongo dafa ñëw ci sëriñ bi ak bëggam sëriñ bi tax mu ne ko damaa bëgg nga dimbalee ma foo jëm yóbbaale ma ma lay lala sa der bi ndax mu di ko gis ndax ñoom gis sëriñ bi fa leen doon yegg dara mënu leen faa yegg bi mu ko ñaanee sëriñ bi sëriñ bi xamal ko ne am nga ndigalul des fi wala fu la soob te ne nekk fa ndax lépp lu koo xam ne nii ne ci man ak ne fi man bokkul ak ne ci sa bopp daal di koy wax wax yam ci wax sëñ Moussa Ka wax na ko wax ne ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp ku ne ci man mu yor la yor sa lépp ku ne ci ku ne ci moom ngir koom maag zaahir mu bàyyee la yooya ku ne ci boppam mu la sa lépp àdduna ak àlaxira ca loola ba mu waxee loola sëñ mu siise ndongo sëñ mu siise dafa wéy dem kon ca ndigalul sëñ bi fas yéene dem bay yóbbu addiya ba mu engagé loola nekk ca liggéey booba nekk ca fekk sëriñ bi bàyyi ko fi kon daal di dem gànnaar ndax daaru mar naan la engagé loolu sëñ bi nag bàyyi ko fi dem dem gànnaar ba mu demee ne fa ab diir sëñ ma si sa ndongo dugg ci àll bi engagé dem di bay ba mu bayee ba mu bay ma sotti amul lu nul benn dërëm ca mbay ma mu xam ne yàllaa ko dogal ca at ma mu daal di jël dërëm bi yóbbu gànnaar ngir yóti ko sëñ Tuubaa addi ba mu demee ba muy gis sëriñ bi ba mu koy recevoir mu daje fa ndaw loo xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moo ko yónni jox ko junni mu indi addiya ju mu doon indi ci sëriñ bi ba mu ñëwee sëriñ bi recevoir andoo leen ñu joxeendoo seen i addiya sëriñ bi wax ne junni Cheikh Ibrahima Fall dërëmub sëñ ma siise ndongo bii lay seere si ndax ñoo boo ko yéene kon ñu xam ne yéene ak pas-pas mooy liggéey bi te euh, un mille francs yi ñuy woote bu ci ñëpp woyee lu ñu bëgg danañ ko am kon bu tollee fii duñ laajaat lu jëm ci engagement yi li ko Abdou Fatah waxee ci ci 7 pour cent lañ toll ci projet bi nga xam ne ni am nañ li ñu war lépp suñ ko jugaloon ci assainissement bi du doy looloo tax ñu woote jaayant bi kon nañ way ci loolu te ñëpp way ci te nekk ci dañuy continuer incha allahu noonu lañ ko waxee. kon bu ko defee ñu xam ne kon la ñuy def jër ta xeeb jër ta nañ ci way deng te te te wéyal ko te xam ne passif bi moo ci am solo ngir wax ne sëriñ bi wax na ne lépp lu ko waay yéene dërëm bu ko waay junni yéene moom dana ko dana ko fal ay dana ko ful ay junni dana ko ful ay junni mu dëppoog li alxuraan wax ne euh, képp koo xam ne nii euh, euh, ji nga aw fepp ci yàlla bu jebbee dana doon aw gub boo xam ne nii ay junni junni fepp a ca nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi sant bu baax sëriñ Cheikh Abdou leeral gi am na solo waaye waxtu wee ñu jot xam naa kàddu cant yooyu dana ñëw ci sëriñ Abibou mooy ministre Abdoul Karim Fafana jëf jim ci jëf ak ministre euh, Khady daam Diop loolu dañ ko bàyyee ak sëriñ moo ciy ñëw di ay cant kon dañuy bàyyee benn minute sëriñ Abdoulaye Mbaye Peex mu am lu mu yón lu mu dugal su ko defee ñu wéyal jataay bi jox ñi nga xam ne ñoo topp ci kàddu gi waaw dafa am ku ñuy wax Ablaye Sow moo yor chambre de commerce bu Dakar joxe na léegi deux millions Ablaye Sow di nit ku yàlla baaxal am na taalibe Cheikh Mahamadul Muntaxa bu ñuy wax Omar Sow day jàmbaar Omar ñi ngi lay woo waaye daal am na kilifa gu mag gu ma dégg goo xam gii xam naa ni balaa jant so dees na dégg mbir de mbir mbir dana xew gis affaire bi <laughs> la la euh, ministre de l'intérieur Bekkaay Diop ne woon affaire baa ngi fii affaire bi affaire bi Touba ca kanam la affaire bi Touba ca kanam la. ku la ko waxal nga jël. ku ma ko waxal ma jël léegi nag sama jàmbaar jii dafa maa woowaat léegi Abdoulaat Ka nee na ma bi 30 millions yi génnee sama na leer ñëpp wéere naa ko ci compte bi joxe naa cinq millions yi bu yàgg dem na jàmbaari Cheikh Abdoulaye Lahat ji loolu la def kon nag gaa yi sama yaram a ngi xasanaat ah damaa bëggoon benn million fii tuuti ah kon nu dem waa sëñ Ablaye sëñ maam Thierno nee la woon nga def ndànk yëf yi yëf yi dana doy waaye kër sañ Tuubaa ga lañ koy mottilee booba buñ fa àggee lu leen neex laaj sëriñ Gancaam ingénieur bi lañ bëgg mu ñëw tënkal ji ko ci bu gàtt ndax waxtu wi jàtt nañu procès bi ak niñ koy liggéeyee sëriñ Gancaam lañ bëgg mu leeral ko bisimilah ñoo xam ne kii mooy mooy ingénieur bi jiile assainissement bi mu nekk ci Touba ci kanam aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba comme euh, waxtu yi daf ñoo njat dañuy ju dañuy jël sunuy nuyoo toftal ko ci nuyoo jëwriñ li nga xamante bi ne ni ñoo fi njëkk a jàll ñu yeggaleel ñu ko li wax ni projet bii nga xamante bi ne ni dañ koo yëkkati mu jëm ci wàllu assainissement dafa am noo xamante bi ne nii moom la ko euh, sëñ bi waxee léegi noonu lañ ko tàmbalee ci lañ ci doxe it doxin wi nga xam ne moom lañ ci dox mooy bi ñu xoolee ñi xam assainissement yépp xam nañ ni assainissement soo koy def dafa doon loo xamante bi ne nii doo ko def di ko def ay barab yoo xamante bi ne ni dañoo wuute soo koy def li ci njëkk mooy que ni bu dee ab dëkk bu mel ni Touba. da ngay jël ay étude yoo xamante bi ne ni day jël dëkk bi yépp ci ni mu toll ba euh, boole waale ci ni nga xamante bi ne ni noonu lay màggee def loo xamante bi ne ni dañ koy wax benn plan directeur boo defee loolu ba noppi euh, ci li nga xamante bi ne ni moom nga am ci koom ci ñi nga xamante bi ne ni ñoo ci war a yëngatu ci ci mbir moomu saa su ne ñu jukkee ci plan boobu def loo xamante bi ne ni day méngoo ak euh, li nga xam ne moom lañ teraloon loolu nag bi nga xamante bi ne ni seet nañ ko Touba ca kanam xëyul xëy rek woote li ñuy wax dafa am fuñ ko teg ndax loolu dafa amoon avant Touba ca kanam ak bi fi Touba ca kanam nekkee dafa amoon li ñuy wax ay acteurs yoo xamante bi ne ni dañoo nekkoon ci wàllu woowu di ci yëngu fii ci Touba bi defee bi loolu amee jëwrin yi dañ ñoo jox ay ndigal ngir ki ni ñu weccoo ak ñooñu nga xamante bi ne ni dañoo nekk ci dëkk bi yoon ci loo xamante bi ne ni dafa jëm ci wàllu assainissement bi ci loolu ci la ñu gisee ñaari mbir daal di wax ni dafa am loo xamante bi ne ni dafa jàmp mënta xaar mooy barab yi nga xamante bi ni dañ koo jël ñu wax ci ni dafa toll ci ñaar fukki barab foofu danañ fa am benn leeral euh, ëpp na ñaar fukk dafa doon loo xamante ne bi ko Touba ci kanam xoolee saytu ko càmbaraat ko xool ak li nga xamante bi ne ni moom la ñuy wax ci wàllu budget dañu ni nañu jël ñaar fukki yi nga xamante bi ne ni dañ koy def bañ ca noppee am na beneen lim boo xamante bi ne daf ci topp lim boobu dafa doon loo xamante ne dañ koo def mu doon loo xam ne liste d'attente la am na ci yoo xamante bi ne sax ñu ngi koy ñu ngi koy fintool yi ñu ngi koy xool di ko càmbar ndax nit ñi ni nga xamante bi ne noonu la ñu wuysee ci woote bi mu doon loo xamante ne luy wéy la loolu it saafara yi nga xamante bi ne ni moom lañ ci euh, euh, tënk fii ñu toll nii mooy li ñuy wax ay solution d'urgence durable yoo xamante bi ne ni day doon solution yoo xamante bi ne ni fii ak màggal gi li ñu fiy def bu leneen dikkatee ëllëg day doon loo xam ne daf ciy toftalu ci loolu ci la ñu xool fi nga xam ne day taa ñu xool ci li ko wër loolu ñuy wax exutoire fa nga xamante bi ne ni fa la assainissement ba yem ñu xool ko am na ci barab yoo xamante bi ne ni fi ñu toll ak ñi ŋànk assainissement bi waxtaan nañ ceeg ñoom ba ñu d'accord ci ñu jëlee ndox mi foofu yóbbu ko foofu daal di ko ci raccordé mu dem ci réseau bi ndax loolu it li tax ñu waxtaan ceeg ñoom mooy mën ngaa jëlee foofum ndox dugal ko ci réseau bi fekk booba ñoom jumtuwaay yee ñu nga xam ne moom la ñu waajal attanul li nga xamante ne ni moom lañ cay def kon bu boobee ak loraange lay lay lay lay jur feneen waaye du jur saafara loolu yàlla sunu borom def na ci tawféex ba nga xamante bi ne nii biñ ci waxtaanee ak ñoom gis nañ ni loola mën na doon loo xamante bi ne luy nekk la. li yeneen beneen bi ci des mooy dafa am mbedd trent yoo xamante bi ne it ni ko sëñ bi waxee day am ndox su amee ndox dañuy wax ni dañuy def lenn def fa li ñuy wax préparation plateforme yi bu ko defee ba noppi ay suñ defee loolu yëpp ba ni comme lu mel ni fii ci chal bi nga xamante bi ne nii dafa bari loo xam dañ fiy jaar di dugg ci dëkk bi yooyu lañu xool ak yeneen mbedd yoo xamante bi ne nii euh, loolu moo ciy am kon yooyu yooyu saafara lañ ci lañ lañ lañ lañ ci doon loo xamante bi ne mooy yenn yoon yi nga xamante bi ne sëñ bi junj ñu ko sànq dafa doon ay yoon yoo xamante bi ne dañoo doon ay yoon yu yu yàqu te bu ñu seetloo li ci ëpp dañoo doon ay yoon yoo xamante ne ni bu ndox amee dafa fay taa loolu ñenn ñi sax dañ koy romb daal di wax ni tali bi dafa suufee waaye tali buñ koy defar fi nga xamante bi ne ni foofu lay toll dafa dafa méngoo ak kër yi fi fi seen i hauteur toll fi seen i altimétrie toll ndax boo yëkkatee tali lu baree bari mën na indi eh, jàngoro joo xam ne ndox mi day dugg ci biir kër yi looloo tax yenn saa yi muy demee noonu loolu it lañ fa lañ fa prévoir mooy def lu ñuy wax benn reprofilage mooy que ni dindi li nga xamante bi ne ni eh, baaxu fa def fa ay rajo yoo xam ne ay rajo yu immersible la jéem a xool ndox mi nuñ koy def pour yóbbu ko foofu yàlla sunu borom dogal na que ni yooyu yëpp am nañ ci ay saafara. bi ñu waxtaaneek ñi nga xamante bi ne ni ñoo ŋànk assainissement moste liggéey weccanteeg ñoom ay xalaat jël eh, yi nga xamante bi ne ni waajaloon nañ ko pour dëkk bi ak liñ ci jot a def. dañoo seetlu ni dafa Touba dafa ñàkk benn plan directeur boo xamante bi ne ni am na kenn ku ko yore li ñu soxla ci assainissement yëpp mën caa nekk dafa doon loo xam ne dafa tasaaroo bi ñu ci waxtaan ak ñoom fi ñu toll ak Touba ca kanam eh, déggoon nañ ci eh, jël eh, jumtuwaay yooyu def ci benn synthèse su ñu defee loolu ba noppi su ñu defee synthèse bi dañu koy do te it dafa dafa dafa mel ni li ci ëpp ci plan yi nga xam ne def nañ ko ak ci nisër yi nga xam ne am na ci wàll yi nga xam ne mooy assainissement dafa mel ni fi mu fi mu yegg ci dëkk bi bariwul ak dayowaayu dëkk bi léegi li ñu bëggoon ci loolu mooy suñu ko jotee moom la sëñ bi doon junj sànq dafa am kuréel goo xamante bi ne ni dañ koy ubbi mu nekk mu nekk loo xamante ni à long terme la ñe képp koo xamante bi ne ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllu assainissement Touba ca kanam dafa fas yéene dugal la foofa am na ci ñu bari ñum ci jot a am fi mu toll am na ci ñoo xamante bi ne sax jotoon nañ cee xalaat ba bind ci loola buñ ko defee te it loolu dañ ciy wax ni ñi ne moo xam ñi nekk ci biir réew bi la moo xam fu ñu mën a nekk ci àdduna ndax léegi xarala yi euh, def na ki ni mën nañoo nit mën naa nekk fu ne di liggéey ak ku ne xam-xam yooyu dañ koo soxla pour dajale ko suñu ko dajalee mën a doon loo xamante bi nee nii dañuy càmbar loolu suñ ko càmbaree ba noppi Touba ca kanam dafa fas yéene yi wéyale étude boobu mu doon boo étude boo xamante bi nee nii day globaliser euh, Touba gi yépp bu ñu noppee def ci benn plan d'action boo xamante bi ne at mu jot dañ ciy am luñ ciy jukki kon loolu liñ ciy wax mooy que ni euh, budget bi nga xam ne déggoon nañ ñu di ko wax mu nekkoon budget bu prévisionnel muy 350 millions yooyu kon ñaar fukki sites yooyu moo doon loo xamante bi ne ni ñoom la concerné woon te gis nañu ni ci liste d'attente bi mën nañoo continuer wéyale kon euh, loola day continuer wéyale ñu indi ci beneen leeral boo xamante bi ne ni leeral bu euh, leeral bu leeral bu gàtt la rek mooy Touba ca kanam su jógee wax jël benn projet wax ni daf ciy def trois cent cinquante million surtout ci lu mel ni ci assainissement ku koy xayma bu fekkonte bi ne ni lépp da nga koo fay mën nga koo xayma ci ñaari milliards ndax daf ci bari loo xamante bi ne du ko fay daf ci bari loo xamante ne daf koy dicté daf koy dikkal dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax matériel yi dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax matériaux yi dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax li nga xamante ne mooy xam-xam yi yooyu yëpp booy def lu mel nii dafa doon loo xam ne da nga koy fay te étude dafay jël lu baree baree baree baree baree baree matériel roulant bi lu cher cher cher cher cher lay coûter kon loolu lépp bu ko amee looloo koy permettre que ni su waxee benn enveloppe xëy na boo koy xool bu bu ñu ko doon def day doon loo xamante ne lu bari lu bari lay doon kon. ci loolu la ñu doon li nga xamante bi ne nii ci lañ ci toll di waxit ni ñi nga xamante bi ne nii euh, ñoo ngi ci participer projet bi dafa doon loo xamante bi ne ni day euh, euh, day day wéyale day day day wéyale waaw nous sommes réunis aujourd'hui ici à Touba le 8 août 2020 pour le lancement des travaux d'assainissement sur euh, 20 points où il y a stagnation des eaux pluviales À cet effet, l'assistance est présidée par le porte-parole euh, du mouridisme, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Ce projet de Touba Ca Kanam, qui est fidèle à la doctrine mouride, rentre dans un programme d'entraide pour le bien-être de la population de Touba. À cet effet, Touba Ca Kanam, suite à des constatations et euh, de, de, un relevé sur le terrain de certains axes dont le trafic est intense à intégrer dans son budget de 2020 de pouvoir résoudre ces problèmes de stagnation et de trafic qui, euh, qui sont très importants, qui, sont, aussi, euh, euh de, qui sont aussi reliés à l'hygiène euh, des populations. C'est à cet effet qu'il a évalué euh, un budget prévisionnel de 350 millions pour euh, cette année, pour la préparation du Magal de Touba, édition 2020. Ces études ont été faites avec la collaboration de l'État du Sénégal, qui n'a qui, euh, qui ménagé aucun effort en passant par ces services qui sont concernés par l'assainissement et la commune de Touba et les bonnes volontés pour enfin arrêter euh, une étude des méthodologies d'exécution euh, d'urgence et durable sur ces points qui causent d'énormes problèmes. Il y a aussi, Touba Ca Kanam aussi a un programme de pouvoir euh, de, de s'investir davantage sur l'assainissement de Touba en créant un comité, un comité qui sera composé d'experts euh, de, dans ce domaine-là pour évaluer l'existence, euh, pour identifier, géolocaliser tout ce qui est réseau d'assainissement à Touba et aussi étudier les projets qui sont en, de, de, de, perspective et de pouvoir les amender pour enfin élaborer, étudier et élaborer un, peu, un programme, un plan directeur de Touba en tenant compte des, des normes et règles en vigueur. Nous vous saluons et vous remercions de votre attention. jërëjëf sëñ Gagne daa mel ne bi ngay wax sëñ Cheikh Aliou nangoo tut a geestu ci xam-xam lay dund te li ngay wax da koo ñor dana tekk di la xool xam naa ne moom yëf yi ñor na ko waaye sëriñ Thierno sëriñ Abdoul Ahad Ka nee na mi ngi lay jégalu bu baax ndax dala daa geestu wutoon may na nuyoo bi mi ngi agsiwaat ci yow waaye sëriñ Mouhamadul Bachir Touba ci kanam seen yéene dafa rëy te gis naa ci dëkk bi loo xam ne wares na ko mën a jaayante su jaaree ci meer mbooleem taataa ñu wër am na ci taataa yoo xam ne kër yam nekk seen borom jóge nañ fa kër yooyee nag bu ñu fexee ba ban jot ci man koo def ay bassin ndox ndox ndox mi amul fu mu xaj waaye am na ci kër yoo xam ne seen borom génn nañ ko warees na koo mën a jaayante nag jox ko Touba ca kanam wala ñu jënd ko jox ko Touba ca kanam ñu def ko ay bassin ndox ma di fa wàcc ndax ndox mi neexut a génn Touba am na ñu mën a jaayante ay tool tool yaa ngi ci àll bi wër Touba te Touba lépp dafa war a wert te ku ne xam ne ne semence bi bari na suñ joxee àll bi Touba ca kanam def ko ay tool kenn du taxawaalu ci dëkk bi Touba ci kanam dafa war a jëmee Touba ca kanam war ko nurale turandoo ca na kon nañ bàyyi kàddu gi ak sëriñ Amsatou moom Cheikh Abdoul Ahad waaw sëriñ Amsatu nee na day ubbi rek jox sëriñ Seex moom sëriñ Mahmadan gis ngeen yoon wi niñ ko rafetale sëñ Tuubaa gannaaw bi mu geesoo nag bokk na ci mboola yam gis Touba ca kanam moo tax ñuy dox doxeenu gaynde ndax sëñ Muntaxa gaynde la boo gisee Touba ca kanam ab liggéeyam am solo dafa yëmul ci wenn waar rek dafa ne ci leele aw ñam te ku xam ne tiyaaba ci nekk ne ci am paj te ku ne xam ne tiyaaba ci nekk ne ci defar ay yoon te ku ne xam ne tiyaaba ji nekk ne ci defar ay daara te ku ne xam ne tuyaaba ju nekk kon moom dafa yaatal loolu nag mooy diine moo dig nit te moo di bokk